nuyu naa leen yéen mbokk internet yi di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak seen déglu dal leen jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi ñu doore ko ak tolluwaay mbas mi fii ci réew mi ak tey jii nam fa tëddee si junne ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti test yu ñu amal rek téeméer ak juróom-ñett rek ñoo si ñëw positif cas positif yi nag daanaka ni la tëddee tey jii am na ñeent fukk ak juróom-ñaari cas contact am na ñaari cas importé bu jóge ci aéroport Blaise Diagne tey jii am nañ fanweer am na juróom fukk ak ñeent Angleterre te ji juróom benn fukk ak juróomi patient yoo xam ne rek bañ leen saytoo ak gisatu ñu feebar bi seen yaram dañu leen di bàyyi ñu daal di ñibbi seen kër tey ji am na ñaar fukk ak juróom ñaari cas yoo xamante ne rek ay cas grave lañ jamono ji seen wér yaram dafa tàgga témba ñanga ca réanimation tey ji nag ñaari bakkan doomu aadama rot na ci mbas mi ñu jaajëfal ministère de la santé et de l'action sociale rawatina docteur Mouhamadou Ndiaye mi nga xam ne bés bu yàlla sàkk rek mi ngi jàkkaloog askan wi ngir rek ñaax leen ñu daal di bantuwaat askan ñu daal di jël rek li nga xam ne rek moy mesure barrière yi bokku na ci raxas loxo yi tamit di sol masque fu ñu nekk dal di ko rek dajalo bu bari bi bu ko defé rek xeyna dinañ fi muccu ndax ñaari fan yi nak mbir mi dafa dal di yegaat rek ba ñu dal ko yeg nak laata ñuy dal di tàmbaliwaat ci li nga xamne rek moy confinement wala ñu gën ko xam jax ci couvre feu ndax lolé yakku na lu bari ci suñu walum kom ñu dem nak ci mbas mi rek lañu descendi te cey ji nak kenn ki nga xamantene rek moo le président burundais bu yag ba won di Pierre Boyoyo mo dal di genn aduna niki dembu ginnaaw bi nga xamne rek dañ ko testé won mu amal li di covid 19 mom nak ma nga nekkon ca mali ba muy am feebar bi mom pierre bouyoya ah, mom mo nekkon ancien président bu burundi tamit nekkon par ailleurs ki nga xamne président représentant bu union africaine fofé ca mali ak le sahel mom mo dal di genn àdduna ni ki démb ci arxamis bi yemoo ko fukki fan ak juroom ñaar ci wéru décembre atum 2020 na bi nga xamne rek mbas mi di covid 19 mom la am mom pierre nag bouyoya mu ngi amone juroom ñaar fukki at ak ben dañ ko dal di hospitalisé woon semaine ba ñu weesu fale ca Bamako laata ñu koy daal buñ ko fa hospitalisé dañ ko mettroon sous respiratoire maanaam rek dafa amoon a jafe-jafe yaram dafa gënoon di aggravé loolee sax moo tax nag mucc da ci bile mbas mi di Covid 19 laata ñu koy transféré ci avion daal di ko yóbbu Paris daal mujjuta daal di antu ci li nga xam ne rek moom moo ko dal ci noonu la daal di fàttu ñu leen di fàttali ne moom moomee euh, Pierre Buyoya amoon nekkoon 17 moo nekkaatoon ñu wat ko ci atum 1996 ba atum 1900 ba atum 2003 mom tamit mo nekkoon ci atum 2012 nak la daal di occupé fonction bi nga xamantene mom la nekk mu nekk le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali ak li nga xam rek moy le Sahel ñi di wa 5 TV ñi ko Union africaine rawatina Afrique yëpp beneen xibar nekk tis bi nga xamantene mo daal di daw ci ki nga xam rek moy Ndoye Bane xam ngeen ko moy ki nga xam moy animé euh, émission bi ñu gën ko xal euh, ci xalaas place mom nak mom mo xeye dal di ñak doom bu jigen bi nga xamantene mom la ngenté fan wessu da naka ñaar wé rek la tolo xale bobé sax mu ngi ko tuddee woon dem ci yalla Adja digen Chimère nek ki nga xamantene ne ci TFM la nekkoon di don animé émission bu na waré wareef mom mo dal di xale boobee moo génn àdduna ci suba si bu ñu ko ci xibaar yi nga xamantene ñom ñoo ko daal di jotto loolee nak nek lo xamantene ci RFM doy baan jur sax a ci dal di def émission bi nga xamantene rek moy xalaas mom mo dal di ñak doom bi xale bi nak mu ngi tuddoo doon déggan chimère daanaka mi ngi amoon ñaari lu tolloog ñaari atré rek ñaari weer rek la daal di amoon ngeen jékkal mu ah, kenn xamul nag li nga xamante ne rek moo waral li nga xam ne mooy faatam ñuy jaal ki nga xam ne mooy Ndoye Bane ah, xale boobu yàlla daal di ko oyof uh, uh, suuf oyof ci koom jox ko keneen koo xamante ne dina fi mën a toog ñu wax ci leneen soxal ci wàllum conseil économique social et environnemental lisee uh, nekk inspection général de l'état nekk këru liggéey boo xamante ne rek day daal di saytu lépp lu soxal wàllum xaalis tey ji nag dañoo daal di dem ngir jàkkaarloog ñaari amanata aminata yi nga xamante ne ñoo daal jiite woon li nga xam ne mooy conseil économique social ak environnemental daal di xool seen gestion nan lay demee ak nan nañ ko doxalee woon jamono ji nag mu nekk euh, ñi nga xam ne rek ñooy inspecteurs yi généraux yu d'état euh, moom mi nga xam ne rek euh, lii di CSE nekk moo nekk troisième institution bu la république ñoom dinañ amal seeni i laaj ngir rek mun a auditer ak ki nga xam ne rek mooy Aminata Touré te jamono ji Idrissa Seck daal di ko wuti ci weer bee ñu weesu Aminata Touré nag moo ki nga xam ne rek mooy Aminata Tall mi nekkoon ca la tête du conseil économique social et environnemental beneen xibaaraat nag soxal wàllum immigration clandestine ñu gis na nag jamono ji nag ma nga bëgg a dellu siwaat fii ci senegal ak ginnaaw bi nga xam ne ne toog nañ lu xaw jot weeru yàlla te dégguñ kenn koo xam ne rek daal nañ barkewaat nag wuti ca Espagne nag niki démb nag juróom benn ñi nga xam ne rek ay bërikat la ñoo daal di faatu ci géej bi ginnaaw bi ñu jëlee yoon rek dog daal di wutali Espagne nag daal nag toog nañ lu yàgg te déggatuñu nag ay nappkat yu daal di deme ca uh, côte sénégalaise wutali ca espagne te ñu jàpp ne sen la sa ka dal di fa nek mu nek lo xamantene nak jukat nañ uh, ti bi yoon nekk nag ay kat ñi ay bërikat kat yo xamantene xeyna jamono ji ba mbas mi amé ba tay ji lamb ji dafa yëngatootul lolé tax rek ñoom it ñu dal di jël uh, dogal wutali espagne ca gëna bari nak bokku na ca mbuur bu ñu ko ci le journal suñu lamb bala Gaye de ak ki nga xam rek moy Ferra nek ci écru du quartier Santhi de Mbour nek nekk dañoo dal di ñak seeni bakkan Balla Balla Gaye 3 lan la ngeen jégal ma ak ki nga xam ne rek euh, mooy feeraay bu l'écurie du quartier euh, Santhie de Mbour ñoom ñooñee dañoo daal di ñàkk seen bakkan ci biir géej bi am na ñeneen ñoo xamante ne kuy tudd Dunxafe 2 euh, moom it mu ngi bokkoon ci écurie du quartier Diamaguène de keneen ki ñeneen lutteurs yi wala sax ñeneen bërikat yi daanaka ñoom it dañoo daal di si géej bi Balka nekk ak Pape Samake ñoom ñëpp ñu ngi bokkoon ci benn écurie ak Lamine journal nag mi ñuy xamal ne am na yu mbër yoo xamante ne tey ji euh, ci mbuur euh, tefes lañ bokkoon ak yeneen ñi nga xam ne dañ ko fi ku tudd buuba jóob ñu wax naka ci loolee nag jàpp ne jamono yi euh, buuba jóob boobu sax nekkoon frère bu ki nga xam rek mooy bombardier ñu naka liggéey rek daal di askan ñaaxaat askan wi ndax ñu dellu waat fi ci sénégal ndaxte mbas mi nag bu fi jógatee daanaka dara duñ ko mën a liggéey fii ci sénégal te nag ñu wax nag ñi yor sport bi ñaar daal di waat ni nga xam ne mooy combat de lu ci ñu def ko dans les mesures dans le respect des mesures barrières bu ko defé yaakaar na ne ñi di mbeuri di wutali espagne dinañu mëna tok fi daan seeni doole ñu waxta accident bu metti bi nga xamantene rek mo ama ca bambay ben élève bu nekk ci classe 4e mom mom la daldi mom la auto daldi fi rek ba mu ñak bakanam xalé ba nak mu ngi am 14 ans la am tuddu fall mbay mom mo daldi ñak bakanam ñu sukkandikoo ci senewet nak chauffeur bi nga xamne rek mo daldi def accident bobu dafa doon bëgg rek jël eh, daw yoonum li nga xamne rek loolu la doon def dafa bëggona daw way nak ginnaaw bi nga xamante ne rek teg nañ ko loxo ñi nga xam ne rek ñoo dëkkee foofu noonu dañ ko daal di teg loxo ba pare mettre ko en garde à vue ca commissariat urbain bu nekkee ca Bambey élève bi nag di Fallou may nag mu ngi nekkoon en classe de quatrième moom dafa jóge woon école rek ci alxamis bi ci suba teel bi ngir rek daal di jéggi euh, mu ngi amoon fukki at juróom fukki at juróom la amoon moom nag dafa jóge école rek ngir wutali seeni kër ginnaaw bi nga xam ne jël na dogal daal di euh, wutali jéggi li nga xam ne rek mooy bretelle bi péage ila Touba foofee daal la ko euh, oto bi fiiree ba mu ñàkk bakkanam ca saase loolee nekk nag colère gu métti maanaam mer ba futu la askan wa nekkee foofu Bambey mer tax rek ci alxames bi daanañ amal ay manifestation ngir rek ñi nga xam ne ñoo yor wàllum yoon bi ñu daal di fa amal ab doo daan ngir rek oto yi buñ fay daw daal di wàññi seen vitesse jamono ji ñi nga xam ne rek ñooy élément police bu nekkee ca Bambey jamono ji nag ñu ngi amal ay intervenir ngir rek ñu daal di calmel askan yooyu xibaar soxal nag ki xam ne rek mooy doomu xam ne rek génn na àdduna euh, semaine benn ñu weesu naka daan ki nga xam ne rek mooy Arouna Diop naka daan nañ jël dogal ngir rek ñu bàyyi ko daal di tàmbale yaram euh, li nga xam ne rek mooy euh, daal di jubal ngir daal di nekk footballeur fii ci Sénégal daal di topp si tànk yi nga xamante ne moom la papam defoon dañ ko dugal ca génération foot naka centre d'académie bi fa nekk ngir mu daal di tàmbali ki xam ne dina mel di ministère des sports Matar Ba ginnaaw bi nga xam ne démb ànd naka yaay jabaru Pa Bouba ba woon doomam ak ñeneen ñi nga xam ne rek dañu ànd moom ca centre centre d'académie bu génération foot ngir rek ki nga xam ne mooy biira ndaw ci alxamis bi nag lañ ko daal di tàmbali niki démb moom ñoo ko daal di recevoir di sant ki nga xam ne mooy président bu génération foot di Mamadi euh, Touré ak directeur gi nga xam ne mooy yor wàllum communication bi di Talla Fall ñoom ñëpp daal nañ recevoir ki nga xam ne mooy ministère des sports ak jabaru Pape Bouba Diop ak ñaari doomam ñi ngir rek daal di dëggal euh, kàddu yi nga xamante ne doomam bu góor bi di Aaron Diop nee dafa bëgg a li nga xam ne mooy football euh, fii ci Sénégal ca centre d'académie opération foot ngir daal di euh, réaliser rêve bi nga xamantene mom la bëgg fi papam jaaro mu daal di fa jaar ñu japp ne nak xalé bobé limu waxa lolé mu na nek ba tax sax dañ ko daal di euh, yaatal fofu mu commencé li nga xam moy carrière football wax nak ci li nga xam rek mo am jamono ji nak mo occupé à la une de tous les journaux mu nek démission bi nga xam mom moom Famara Ibrahima Sagna moy ki nga xam mom la Macky Sall faloon ngir mu daal di jiite li nga xam moy comité euh, bu soxal wàllu mooy dialogue national bobé ba tay ji nak big ab mo ci am ginaaw bi nga xam rek les informations daan nañ ko jot ci presse Afrique ak presse sénégalaise ah, daan def nak démission xamal ko ñëpp ba ñëpp dégg ko ah, président ba won nak président ba won di comité euh, pilotage dialogue national presse Afrique nak bu mbir mi amee dañoo daal di tenté ngir am ak mom ak contact waxtaan ak mom ci àllarba bi waye nak ki nga xam rek moy amara Ibrahima sanya dafa daal di bañ décrocher téléphone daf leen raccroché au nez ba paré ah, ci 48 heures rek ñu daal di xaar nak ci moom Ibrahima Sagna si la daal di joxe yeneen xibaar yu bees SMS sax la envoyé. waaye ñii di wa presse afrique di len xamal ne presse afrique nena il n'en est rien nena il n'en est rien amu dara lu xew nee rek ñu ngi len di jaajeufal di len wax juma ju barak message bobu nak ñi di wa presse afrique dañ ko daal di capturer ngir rek dal ko won askan yi mu ngi xamne ne démissioné euh, wuma ci poste euh, li nga xamne moy président di comité de pilotage euh, di dialogue national lolé nak nek lo xamantene jamono ji mi ngi jural askanu sénégal ay yo wala sax ay jamarlo nga xam rek ndax wax ji mo duppé ci nga xamne moy ibrahima famara sañ ñaan nekk mbokk yi xibaar yi gënoon fës ñuy jëfal ci andi beeg déglu bi di leen joxoo digal ba ci euh, kanam di leen wax nag ngeen yenoog jàmm di am jàmm yàlla def jàmm ci Sénégal juma mu barakatus